dara ja seen nga mbolam mi fenn fu nek ben waya nga fa joge fu nek nit nga fa joge ngir gàttandu ji ki nga xamne modi di Serigne Cheikh Ndigal seen bu njambur seen mom Cheikh Ismaïla Diouf Nouroullah oto ya nga noné ñew xamna ci kanam tutit na and ak yeen acca ñu dem wa kon alhamdulilahi rabbil alamin gis ngeen jaga Njaay bobu jitu mo joge njambur seen wa kar sayyidna ali ñi nga ñoo ci solo ba fess dañoo ji won sang bu tedd bi sayyidna ali ibrahim daru salam Belki mo Serigne am Serigne Cheikh Ndigal seen ngi fi mu nekk nii tuuti dog jot xamna ne dernier mama la ñu ne nga xamne dog day dal di waaj jot fu nek ni ta nga fa joge ñoo ci 18h59 ma nga belki Mangga ma ser andak ser ser info mom la andal tay ñu gàttalu ji señ Cheikh Ndigal sen gis nga mbolo mi mbolo ma ngi noonu auto bobu jitu señ ali ñi ko mom bële oto Gambie la jógee Seexu Sëñ Aliou ñu ngi la ñii waa Gambie fi nekk Seex Mohamed Fall a ngi noonu. oto boobu sëñ Moustapha Ndour la ak waa Touba TV site baa ngi noonu sëñ Moustapha Ndour alxuraan a ngi noonu Seydina Aliou ñu demal ne bu ko defee rek euh, gis ngeen ni nga xamante ne ni lay demee euh, bu ko defee rek euh, mbir maa ngi nii nii lañu ñu gàttandoo Serigne Cheikh Ndigal seen bu Njàmbur Sine moom Cheikh Ismaïla Diouf Nouroullah maa firndam ci log ci euh, teg ci ndeysaan gis nga oto baa ngi noonu di ñëw euh, Serigne Moustapha Al Karim di taawu sëñ Cheikh Ndigal Sène moo jiitu moo yor 4 bu ñuul boobu Eh, di ñëw ah non garaawul garaawul eh, bu ko defee rek gis nga ko noonu Serigne Babacar Mbaye sandrama moo yor mbub mu wert mi lang ak moom doon seexu sering bi lu sering gis a ngi noonu waa sappoor a ngi noonu Serigne Pate Coy Serigne Seex bu njaareem Serigne Pate Coy kooku ngay seen mu yor kaala gu ñuul gi mooy Serigne Pate Njoy bu Tëngéej kooku sandrama la kat kat bële ngay seen Gambi la jóge Ibrahima bu Gambi moo ci ne mbooloo maa ngi noonu yéen ko mbir ca sëñ Mustafa Ndour alxuraan Qur'an ngi ni cameraman Touba TV nga kan, na le gis ngeen gaay mbolo ma ngok mbir ma ngay dox Serigne Paté Thiey sa police bu la bu doye nga bu la bu doye bu la neexee pause

Everybody. Amen. ñi ngi leen di nuyu baxta te di leen siyaare eh, suñu sang bu tedd bi Serigne Cheikh Ndigal sen mo nekk noonu yegsi na ba mi commencé di nuyoo eh, fi ci daru salam Belki and nak eh, taawam bu sel bi Serigne mustapha Al Karim and nak serigne Mamadou sen. and na itam ak serigne Abdou Bëkk nek and ak ñom serigne Ablaye Sarr ak mboolem ñi nga xamantene serigne khadim ay njabotam yu takku dal ñew nañu ak magam serigne Mbay magi mag mom itam ñew na ci bis bi bis bi nak doon ndogu doon cant ñu diko ko fi ci daru salam Belki ki nga xamne moko fi dalal di sëriñ naa lu ñu ngi murid Ndigal kon mbir maa noonu xam ci kanam tuuti rek danañ continuer ak yéen ci yi nga xamante ne moo fi jot a jaar muy jébbale ndog yi ak itam bu ñu demee ca ba cérémonie officielle ba ak yu mel noonu yëpp daal dinañ ci ànd ak yéen incha allah ñu ngi leen di siyaare tubal te jégalu leen jox ndox